aousu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni u'iizuha bika wa suriyataha min aseytaani rajim rabbi aousu bika min amasaati sayaatin wa aousu bika rabbi an yahdurun alhamdulillahi lasi jaadali bima bihi sakartuhu min naili alhamdulillahi lasi qad arsala rasulana muhammadan wa bajala alhamdulillahi ala alxamiisi almushiba sukkuki wa dumuusi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum mbokki biir réew asalaamaaleykum mbokki bitim réew noo ngi leen di nuyu di leen nuyu gën ngaa tedd nuyu muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nuyu mbokkum julit ak uh, mbokkum julitam waaye nuyu taalibi ak mbokkum taalibeem waaye ñoo ngi ñaan ci barkeb Seexul Xadim yàlla doole def ci réew mi jàmm waaye ñoo ngi ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa al xalifatul am li tarixatil muridiya suñu borom subhaanahu wa taala guddal fanam te wéral ko ba naal yi mu naalal maamam seexil jàmbaar ja mu eggale yëpp ba yeneen naal te ànd koog mboolem lislaam yëpp waaye bu baax a baax sama wajur El Hadji Mor Dior Mboup di ñaan yàlla guddal fanam te wéral ko mbokki téléspectateurs yi ak Actu TV nag tey dellu seeti nanu ci suñu émission bu mag bi ci télévision bu mag bi di Ndindy Actu TV waaye ci seen émission démb ak tey waxoon naa ci sama biir wax ne démb ak tey rek bu nu ko déggee war nañoo xam ni lu ama am solo ngi noonu ndax démb mat naa xam li tax mu mat a xam mooy ci lañuy ñuy te moo waral tey tey mat naa xam ndax tey boo boo boo ko xamul doo xam ni nga fi nekkee te ci sa tey jii ci nga mën a defar sa ëllëg kon seen émission démb ak tey di waxtaane mag ñi jaar jaari mag ñu baax ñi ci ànd ak jeune historien Papa Lo Mboup géwélu Serigne Saliou dellu seetu nañu di nuyu bu baax ak safam mboolem ñiy wétali ko bi di siyaare ñëpp te ñaanal ñëpp. yàlla defal ñu tawfiix defal ñu ak dégg akub topp tey nag seen émission démb ak tey mu jukki ci mag ñu baax ñi ne woon ci biir réew mi nga xamante ni jom lañ fi nekkee woon fit lañ fi nekkee woon teraanga lañ fi nekkee woon ak lislaam mag ñi fi ne woon nga xamante ni bu nangu jotee dañ daan nangu waaye bu bañ jotee ñu bañ yaafu suñu benn yoon tey nag ñu jukki ci kenn koo xamante ni bu ñu ko tuddee ñëpp daan xam ni mooy maami waa réew mi mooy maami waa Sénégal muy kan muy Mouhamadul Xayri Serigne Mbacke Maram maam Maram moom mii nag moom la ñu fas yéene waxtaanee tey wax lu mbokk ak réew mi ak fan mooy cosaanam ak yan soxna la dencoon ak ñan la ci am loolu lañ fa yéene indi jotaay ci ak yéen ndax maam defe naa ku jàng histoire da nga xam ni. soulèvement des maarab bi mu ñëwee maam moo réglé coow li nekkoon nit koo xam nitu xam-xam la te boo déggee maam moor na bu mu baax ma ca téere mbalam tey wax dani aw sant ngi nii wuy joxe ay hidaaya ñaanuk boroom faw xana jàngilaaya wii sant laay wuyoo te moom laay màggal kii la xamal kii la amal du maasum ki la jàngal daal ni sëriñ si dañ daan jéem a xamle yàlla sëriñ Bamba ñëw jàll di am le yàlla loolu la wax ca way wa daal yëgal ni réew mi koo fi gis mu tekki booy xeñtu askanam mu tàbbi Mbàkke maamaaram moomu nag mooy maami waa Mbàkke gépp ndax moom amul woon jot goo xamante ni mënoon naa dëkk Mbàkke waaye doomam jun naan Ahmadou Farimata moom la yebal mu sañ ci Mbàkke maamaaram nag tuddul maamaaram muhammadul xayri la bàyyam tudd muhammadul xayri di doomi habibullahi habibullahi moomu di doomi muhammadul xayri kon maam maaram maamam la ñu ko tudde muy lu yàgg am boo déggee mën lay tuddul maam it wajuramu jigéen ma tudd aram ñang aram ñang di doomi atumaan ñang di jigéenu bërgël ma fenti ñang ca jolof Mouhamadou Habibullahi mi nga xam ne mooy wajur maam maaram nag bi mu jógee Jolof ñëw ngéeneen nekk fa ca penc ma ci la ko bërgël ma fent ñang gis ko doyloo ko lool ci jikkoom ci xam-xam ci sell ci melowu sell wa mu meloon mu may ko rakkam arab ñang aram ñang moomu mbokk yi mooy wajuru sunu maam maaram loolu waral ñu naan ma arab cosaanu réew mi day bu nu tuddee nit di ko dàkkantal ci ndeyam ba tey boo demee suñu mbokki saalum saalum yi bàyyiwuñ ko bu nu tuddee nit ku góor di ko dàkkantal ci ndeyam waaye bu dee jigéen ñu dàkkantal ci baayam aram ñang mii waajuram bu jigéen nag moo tax ñu naan ma aram ma aram ñin ñi mu nekk suñu maam ñu naan maam ma aram waaye tuddul ma aram muhammadul xayri la ko baayam tuddee muhammadul xayri wax naa leen habibullahi mooy baayam habibullahi muhammadul xayri mu mag muhammadul xayri mu mag doomi sànq it saxay di doomi Ousmane Ousmane moom di doomi almaami Seexu Mbàkke ma gàddaani Fuuta a ñëw Jolof wax naa léegi ne almaami Seexu Mbàkke ma gàddaani Fuuta a ñëw Jolof nekk fa di fa jàngal alxuraan di bay di sàkk dund bu lew ci bay nit ñi jóge fu ne di ko fa fekk mu doonoon nit ku dëgër na mel doonoon nit koo xamante ni ku bëggoon jaamu yàlla la te fonkoon ko ba yëmali kook dara bi nga xamante ni ñëw na foofu nag maam Ousmane mii maami maam Maaram moom ngeeneen googu la jóge dem sanc nag maam Ousmane moo sanc Mbàkke Doode bi mu sancee Mbàkke Doode nag ñu nekk fa lu yàgg ci la fa maam Abibulaay mii di bàyyi maam Maaram jóge fa dem sanc dëkk boppam tudd ko Mbàkke Sañank mbokk yi maam Maaram mi ngi juddoo ci Mbàkke Sañank googu ci atum 1111 di ay xasin yemoog 1111 ci gàddaay bi alayhi moom la judd maganteeg maam Maxtaar Ndumbe mi sañ ci kokki ñetti at maam Maara moom ak maam Maxtaar Ndumbe ñetti at ndax maam Maxtaar Ndumbe 1114 la kon noonu noonu la maam Maaram juddoo muy koo xamante ni nag ku am lu jafe ndax dëkk bi mu juddoo ci fi la wàccee liggéey tamit mu Mbàkke ma Mbàkke Sañank ak njaboo tamit wéral nañ ni ku guddoon fan la maam Maaram Mbàkke moo rawoon ci réew mi ñu nekk di Sénégal. ndax li tax mu guddoon fan mooy ju dundoon na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent téeméeri at yu manqué benn waaye dundam gépp mu jeexal ko ci jaamu yàlla moom nag way juróom bu góor maam Habibullahi moo ko jàngal alxuraan ba mu mokkal jàngal ko xeeti xam-xam yu bari ginaaw bi nag maam Maram daal di laxas dem ci dëkk bu naan Tabilang fekk fa sëriñ bu naan maam Masamba Thiam moom jàngal na ko xam-xam nekkoon koo xamante ni lépp lu ab donga di daj ci daara ci coono moo xam ci alquran la wala ci tërbiya maam Maram daj na loo xam ne kenn mësu koo daj wax na ni maam Masamba Thiam mi nga xam ni moom moo ko daan jàngal ci ab tënk bu gàtt rek nekkoon na koo xam ni maam Maram ku ràññeeku woon la ca daara ja wax na ni dong yi dañ daan def toolu àllarba lañ daan defal maam Masamba Thiam waaye maam Maram tool ba ma wutulu ko woon bis nii ñuy melal maam Seera Fall ci nangoo liggéey ak nangoo jël addiya di ko joxe nu ko raw la meloon ku nangu woon la nga xamante wax na ni tool ba la muy sori sori amoon na fa ndaal yoo xam ne ci kër gi la ko daan roote di ko yóbbu tool nga xam ni dongo yi neen daan nañu ree maam maaram maam Masamba Caam ne ko Mamadul Xayri ñu ngi lay ree de waaye mbooleem foo aw rek ak sa tànk yi ñu lay ree ëllëg bu ëllëgee sa sët yi danañ fa aw ñu di leen sukkal ak te loolu egsi na kon lu ñuy teg bët la wax na ni maam Masamba Thiam ab lalam mas naa damm benn tànkulal bi deñ mu woo ma maaram ko damaa bëgg nga toppatool ma aw jën ñu def ko ci tànkulal bi maam ne ko waaw bu subaa nga toppatoo ko suba la ko wax moom waaye maam ci amuk taalibe ci nangoo liggéey ci nangoo tërbiya ak nangu ga ne woon ca moom wax na ni bi ma Mama Samba Thiam génnee rek dafa dugg ci fi lal bi fi lal jën wi war a nekk moom mu tëdd fa moom nekk jënu lal Mama Samba Thiam bi mu ñëwee toog ci lal defu dara mu ne ah maaram mii moom am na pëseef di moom suba laa ko wax ndeke dafa wut noo jën ba defar ko ndeke ma maaram mooy jën wi ci la euh, sëñ ma Samba Thiam fanaan ba bët set maam maaram fajar mu doo bi sëñ bi jógee mu doog a jug dem wutiw jën sëñ bi xoolal googu googu nangu googu tarbiya te mu amul juddu am lépp waaye nee naan maam mas naa wax maama Samba Thiam ne ko askan yu ma bokk dañoo néew askanu Mbàkke lu néewoon la waaye damaa bëgg ñu bëri te barkeel moo tax nangu gi mu nangu ak lépp rek lii la ko mujj jural maam nag bi mu matee denc soxna jàngi téere yi ba jeexal bi mu matee denc soxna dafa jël doomu nijaayam awañang am ci Ibrahima awañang ak Assa Mbacke Awa Niang ak Soxna Mbacke Awa Niang ak Xari maaram dem na Musoobe jël fa Soxna Buso Soxna Buso moo ko sëriñ ma Buso Awa Mbaay sëriñ ma sëriñ ma tabara Buso mi ab jigéenam la Soxna Buso moom am ci Ahmadu Soxna Buso ak Sayar Soxna Buso maam dem jël farimata sekk ca cuurur am ci ahmadou farimata ak ceerno farimata maam dem kokki jël fa xari jóob am ci ahmadou xari jóob maam dem mbayeen cës di jël fa soxna mbay am ci maa abdu soxna mbay waaye maam denc na ab sa njaay am ci sëy na bu ab sa njaay maamaaram dëkkoo jigéen ju baax ju naan soxna Aysa Kan Aysa Kan mooy wajuru maam Balla Aysa mi nga xam ne ci la euh, sunu yaakaar Seexil Xaddim ci la ci la feeñoo ci la sëtoo ci wajuru mu góor maam Balla Aysa moom wax na ni moom amoon na ay mag waaye ñëpp dañoo wàcc liggéey ba mu des moom ñenn ñi ne mësta am mag mësta am kenn benn doom la ci ndeyam loolu deux versions la yoo xam ni mboor andi na ko waaye li wétawul rek mooy maam fukki doom ak ñaar la amoon juróom-ñett yu góor ak ñeent yu jigéen loolu la Moussa Ka wéral ci téereem bu mag boobu mu def ne lii la am ci ay doom amul leneen te is bu amee ñeneen it histoire bindul ñooñu ñii ma la limal daal moom la maam amoon ci ay doom muy Ahmadou Soxna Bousso ak Sayar Soxna Bousso ak Thierno Farimata ak Ahmadou Farimata ak Ahmadou Khary Diop ak Ibrahima Awañang ak euh, Balla Aysa Matia Ngay muy juróom-ñett yu góor ak Khady Mbacke Awañang ak Soxna Mbacke Awañang ak As Mbacke Awañang ak Seydou bu Mbacke ab sa muy ñeent yu jigéen loolu amoon maamaaram nag bi may commencé nee naa leen moom mooy mooy mooy maami waa réew mi waaye yu ma wax léegi nee la yëgal ni ko fi gis mu tekki booy xentu askan mu tàbbi mbàkke mooy maami waa réew mi doy na ci sëkk nga ni mooy maami Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa xaali ma war anta sëli siin ba bala ay sa maca ngay sëriñ mbàkke maaram waaye sëriñ Tuubaa soxna jaare way juróom asta waalo amul soxna buso sëriñ mbàkke maaram doy na ci foofu rek exemple nga nga wax ni mooy maam yi suñu El Hadj Malick bàyyi suñu Babacar ndax moo jur Ahmadou Farimata Ahmadou Farimata moo jur Mati Joosi Mbàkke Mati Joosi Mbàkke moo jur Ousmane ak Basine Ousmane moom moo jur El Hadj Malick bàyyi suñu Babacar ndax dañ ko jox tafsir Demba Buuna ca gaaya mu am ci Ousmane si ak Basine si Ousmane ñu dénk ko faa wàddu wele mu am ci sëñ Alaaji Malick bàyyi sëñ Babacar bàyyi sëñ Abdou Assis si bàyyi sëñ Mansour ci waawoon dugg waaye nga mën nga ni mooy maami réew mépp ndax wax naa la ko léegi maam Thierno borom ñu ci daaru soxna Faat Issa Diop booy jërëm wu jigéen ab sa Mbàkke Ahmadou soxna Bousso sëriñ Mbàkke maaram kon gis nga boo demee daaru ñu soto ci maaram ay yoon yoon boo ñëwee Touba ay yoon yoon foo dem rek nee naa la Ousmane ak Basine ñoo bokk ndey ak baay Basine moo jur xaalimor Basine Ndiaye ndax Basine lañ joxoon Mouhamadou Lamine Sala Ndiaye ma ca Jolof Ndiayeen kàdd ma nga xam ni mook mook Biram Penda Njéemé Njote mi jur Alburi Ndiaye seey ba ca Doosa ñoo bokk Bakar Koddu Biige moo am ci xaalimor Basine xaalimor basin moo jur sëñ Birahim Ndiaye sëñ Birahim Ndiaye moo jur sëriñ Baye sëriñ Ndiaye Gédé mu baax ma te xarte woon ak sëñ Fall lool ak sëriñ Ndiaye sëñ Aliou Ndiaye Gédé rakkam ñooñu tamit dangay gis noonu lañu ñu sodoo ci maaram waaye Ahmad soxna bu sa mu maam maaram nag moo jur soxna Mbàkke ak Asta Mbàkke soxna Mbàkke moom la ñu jox maam Abdou Khadir mu am ci jama ba ak aminta ba aminta ba moo jur sëriñ Mouhamadou dem bu njaareem sëriñ mu dem mu am sëriñ Abdourahim dem waaye jama ba moo jur sëriñ Njóogu jama ba wax naa ko léegi mu yoroon barabu sëriñ Tuubaa bi ndax sëriñ Njóogu jama ba moo jur sëriñ Tafsir Mbàkke mu jur sëriñ Seexuna Tafsir mu baax ma te ragal boroomam ak sëriñ Fallou Tafsir nijaayu Baye Serigne Ndiaye Guédé mu ndaw sama sëriñ sama xarit mi may dimbali waaye maam Maram bi nga xamante ni dafa am dameel bu fi nekkoon di Amari Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ di buur boo xam ne lëjëloon na sëriñ si lool nga xam ne rey na lu bari ci sëriñ si ñi mu jàppale ni jàmm Mamad Lamine Sarr mi nga xam ni moo sancoon caareen jama Mamadou Lamine Sarr moomu moo fa yebal faraka ba bu naan maa Massamba Fabe mu rey ko bi loolu amee sëriñ sépp nag daal di dajaloo ne nag dañuy dal ci kaw dameel Amari Ngoone Ndeela ndax lii muy def di rey ay sëriñ kat bu nu ko ci bàyyee mën naa dem ba diine ji ñu yor sax dana nu ko tere daal di jël ay lettre bind ko sëriñ si nekkoon Kajoor Bawol siin saalum fuuta ak jolof ak almaami yeeg ñëpp ñu woo leen bi nu bindee leetar maam maaram ca Mbàkke Saajñànka maam maaram Mbàkke moom dafa gàntal maam mii may waxtaane ndax dani moom du xeex ci ni daa am lu ko naqar rek di xeex buy xeex day day xeex ci jihaad xeex ci yoonu yàlla waaye du xeex ci daa am lu ko naqare ci digganteem ak moroomam rek muy xeex noonu la gàntale ba ñëwul waaye sëriñ su bëri daal di dagg li doon def ñoom it daal di ñëw fekk si doomi Sëriñ Kokki Matar Ndumbe yi nga xam ne Ahmadou Faa Xujja ak Ngor Faa Xujja ak Balla ak sëriñ si njàmbur sépp bi nu dajaloo fekk si leen nag damel tañ amari ngoo ndee la xeex ba daal di am muy bataay bu metti ci sëriñ si damel amari ngoo ne ndee la xam nga li tax mu gañee sëriñ si ab sëriñ jonjon ju bari di wàllam xeex du mbiram lim xam mooy noppi jàngal xuraan ak dimbale waaye ab ceddo a jekk xeex mooy seen mbir xam nañ expérience yi nekk ci bataay nu ñuy def ba gañe ko ak ñeme dee loolu moom mu ngi ci ceddo yi loolu waral bi xeex boobu amee nag ah Amari Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ jàpp sëriñ sëpp ñenn ñi mu rey leen ñenn ñi mu jàpp leen i jàmm nga xam ne maam Maaram Mbàkke mii borom moom xel la ku seelum xel la bi loolu amee nag maamaaram toog na lu matum at doog a jaale si bi mu matee at mu doog jaale si ànd naa mboolem ku mu jur ànd ak njabootam gépp wax naa ni am na dëkk bu maam maaram Mbàkke jaaroon ba mu fa fàttee ndomb ak baatam gi mu daan takk mbooloo mu bëree tax génn na dëkk ba ba sori lool waaye da koo wax ki ci ginnaaw mu wax ko ki ci ginnaaw waxaat ko ka ca ginnaaw ba ba ba mu egg ca dëkk ba ngir mbooloo ma waroon fas yaatul noonu kon xam nga ni kooku àndoon ak mbooloo wax nañ tamit bi mu egsee ba guy fukki sër pënd bi wuri na ba egg ca dëkk ba kon la mu àndaloon bari na ànd ak taawam yu baax yëpp bi mu egsee jaalee Mamadou Lamine Sarr mi nu rayoon ci caareem jama jaale ko xamal leen ni damay ñëw nag jàll ca damay la amari ngoone ndee la laaj ko lan moo tax mu def lii mu def ñëpp daal di taxaw lànk ne ko bul dem Mbàkke boo demee dalay def na mu defoon sa moromi sëriñ sa maamaaram ne leen man dinaa dem ak lu mën a xew rek dinaa dem mbokk yi xam ngeen ni dameel daa xëy rek ne soos ci kawam bala ngaa egg ci dameel dafa am fooy protocole yu bari yoo xam ne ci ngay jaar bi mu yëgloo nag ñu wax ko dameel ne ko ku naan maamaaram Mbàkke moo lay nuyu dëkk ca Mbàkke saa ñànk di ab sëriñ dameel dani maa ngi sàkku maak moom rek nanu daje ci xurwa njaboot gi gën a tiitati gën a am ak jaaxle ne boo dajeek moom da lay def na mu defoon sa mbokk ma ak sa sa mbokki sëriñ yëpp maamaaram ne leen lu mën a xew dinaa dajeek moom fii mu wax waaye maamaaram di koo xam ne yàlla da ko defaloon tawféex lool nooyaleel ko demel amari ngoone la ba jàmm rek a dox seen diggante li waral sancuk Mbàkke nag ci laa leen di wax nii li waral njabootug Sëriñ Tuubaa dëkkee ci fii ci Mbàkke ak Bawol gii li waral njabootuk maam maaram Mbàkke gépp dëkkee fii ndax jolof la ñu dëkki woon ca Mbàkke Sañank li waral loolu bi nga xamee loolu am na damay la amari ndee la daal di dajeek maam maaram ci xurwa bëgg ko lool gis ko rek bëgg ko teral ko teraanga ya ca war yëpp ne ko yow bëgguma dara lu ñaaw dox sama diggante ak yow moom damel teeñ bi nga mooy yilif kajoor ak bawal di dameel di teeñ dambe ñaari réew yëpp waaye yàlla def ci moom ak woyof goo xam dana ko yow bëgguma dara ñaaw dox sama diggante ak ndax Amary jaa mi jur Jayle Dia sama am moom lañ ma tuddee kon kooku jox na ko jër ne ko nag li doonoon say tànk maam maaram ne ko damaa jug ngir ñaari yëf damaa jaale si woon sama mbokkum sëriñ mii nga rey waaye ma jug nag ñëw beneen bi mooy ñëw ci yow laaj la lan ma waral nga nga rey ko te sëriñ yi ngi ciy jàpp ay jaam ñëpp nga bàyyi leen ndax du ñuy jaam ndax xeex boobu du woon jihaad mooy la ma waxoon ca ban ko bindee leetar ba wala kooti mënta bàyyi ma jot ci sama alal nga xam ne loolu la waral dameel bi ànd ak moom ñuy jàpp bàyyi sëriñ ci jàppoon ñëpp ñu ci mënta jàpp bàyyi mu jot leen ci alalam ñuy bàyyi sëriñ si ñuy dellu ba mu jeex tàkk sëriñ soosu am na lu yàlla wu mag wu ci bokk ñaan ko almaami Abdou Khadir Kan nekkoon ab almaami ci Fuuta di maam yu bari ñu sant kan koo xamante ni bii xam ni boroom xam-xam yi xool nañ ko dañ ni dañ ni dañ ni Amari Ngoye Ndeela yu mag la na nga fexe ba bu mu tuuru ci Kajoor ak Bawol nga xam ni wax nañ ni almaami Abdou Khadir kan dañ koo booleeg mbooloo ñu yóbbu ko ba Fuuta dameel bi wax ne maam maaram yow kat yaa gën a rafet am xel sa mbokki sëriñ si ndax nii nga rafetem xel te selle ko ñoom bu meloon noonu duma xeex ñoom ba di jaray kenn daane ko nag damaa bëgg sax nga nekk sama sëriñ ma sancal la dëkk nga di ma àtteel ma maara Mbàkke gàntal ne ko nag fii ne nag mënatumaa nekk fenn fudul Mbàkke sàññank ndax mag laa waaye njaboot gaa ngi nii ko ci tànn moo la ko fi wax na ne am na kum njëkk a tànn mu ne ko kooku nag day sama loxo ndeyjoor waaye tànnaatal bi mu tànnaatee nag mu tànn Ahmadou Farimata Ahmadou Farimata moomu Mbàkke Ahmadou Farimata moo sanc Mbàkke Bawal gii nga xam ne dañ ko booleeg damel da ko booleeg faraka ba bu naan sëriñ ñaraxlaan da ko booleeg sëriñ ñaraxlaan ak euh, sëriñ saate ndax dëkk yooyu ñoo fi njëkk Mbàkke Bawal gi ak euh, ñu ne woon foofu yëpp ñu ànd ak moom daggal ko Mbàkke gi ñu daggal ko Mbàkke ba kàddu bàlloo ji loolu damel tañ am ngoone ndee moo ko may maam kon ku dëkk fii rek li commencé ci bawol gii di Mbàkke ba ca kàddu bàllu ji lépp ci moomay lu maama aram la bokk ndax damel tañ amari ngoone ndeel kumba jaariñ moom buurub gaat ci Yaasin ma Jaxate moom calolot koddu ngoy ndaw moom njaay moom moo ko mayoon maama aram Mbàkke mu dëkkee ko nag ak njabootam dëkkee fi wax na ni Ahmadou Farimata moom bi mu faatoo dañoo woowi rakkam mu ñëw bi mu wàcceeb liggéey ñu woowi waat keneen mu ñëw ba ni nga xamante ni maam Balla Aysa mi nga xam ne moom mooy caatu maaram doog a wàccub liggéey nag mu doog a ñëw ci sët yi nga xam ne maam maaram maam Balla Aysa moo nekkoon sëriñ Mbàkke mu jóge la fa jóge dem fee ca ngay ndax ñett doom yi mu amoon mooy xaal mu maranta sëli ak euh, sëñ Abibulahi ak sëñ Abdou Xaadir ñooñu dafa am ku ci pël yi rayoon fii ngir def ndaar alal léegi nag loolu la waral maam la jóge mbakke gi dem ca Ngay moom it Ngay yàggu fa ndax kaamilu ndono boobu nga xam ne maam Maarama ko yoroon dañ koo defaroon ba mu rafet wax na ne ay pël fekk ko fa teg ko alal moom it daal di koy lor ba fàtt jël ba kanam ca Ngay ba booy dem xel kom barab boobu nga romb mu mel ni jàkka foofu lañ denc maam Balla Aysa ma ca Ngay Balla Aysa moomu nag bokk yi moo denc Anta Kan mum Saliloo mum Dàmburi Sàmba mum Balla Mbërgu mu mbër gu Sénébagay mu dem maxtaar mu maxtaarum ndam am ci xaali Mamad Anta Sali siin ba xaali Mamad Anta Sali dem ci soxna jaara astowaalo numbe daano daan numbe ñang awa digg camara maree ma Jóob samba yib Jóob mileer gi baax na njokk ba màkka am ci xaadim borom ñi suñ tubaa borom jàkkee géej gi taawloo ci sëriñ Moor jaara teg ci sayxil xadim ak sëñ Habibulaahi ak soxna maam Faati Mbàkke bokk yi loolu la ñu leen jukkiloon ci maam Maara Mbàkke ndax xam ngeen ni li ñu amoon ci waxtu jot na waaye maam Mara mën nañ cee fanaanee wax ndax mooy mbokkum réew mi Mara Mbacke mooy maami Cheikh Anta borom nit ñi ci Daaru Salaam ndax Anta Ndiaye Mbacke mi ko jur Ibrahima aw ñang sëñ Mbacke Maram Anta Ndiaye Mbacke moomu bi ñu ko joxee xaalis Mamar Anta Sali siin ba da ci taawloo Serigne Mbacke Anta teg ci soxna Faati Anta teg ci Cheikh Anta borom nit ñi ci Daaru Salaam caatloo nag teg ci sëñ Afiya Anta daal di caatloo nag soxna Anta mi mu tuddee Anta Sali maam kon loolu la ñu jukki woon ci maam Maram nga xam ne mooy mbokkum réew mi di am mbégteeg bànneex àndaat ak jotaay bi di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaan ci barkeb Serigne Touba suñu kilifay diine yi ak suñu kilifay aada yi yàlla dëbbu leen kàttan teq seen fan yi def kow doj ba li ñu bëgg a liggéey réew mi lépp ñu liggéeyal ko di ñaan yàlla na yàlla doole def ci réew mi jàmm ci barke Seexul Xadim di nuyu sama baay El Hadji Mor Mbuub ak soxna Oumy Sène ak mboolem koo xamante ni yaa ngi safoo Papa Lo bu géwlu Serigne Saliou di nuyu baax soxna Ndeye Mbacke ibnu Serigne Abdou Fatah Mbacke ibnu Cheikh Amadou Fadal noobul bu mag boobu nga xam ne mooy borom kër gi di nuyu bu baax mboolem koo xamante yaa ngi wétule ko jotaay bi kon dañuy wàcc suñu kàddu di nuyu bu baax Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Cheikh Thiolle mi nga xamante ni moom la ñu fekk fii ci kër gi di ko ñaanal yàgg ak yokk ak wér mu dan wa rahmatan minallahi bat yi jërë ngeen jëf